précédemment dans Koro TV. oui nga nangu waaw kontaan naa moom. may sa garde hmm? ngay mel ni tomate lokkati xaw ma dangaa aar fois xaw ma dangaa wéef yow lan la. yaa ngi may soog a gis ça va ça la est-ce que tamit doo am toog ku jom nga toog bàyyi ma damay snap sama snap yow lan la. xam nga naa la ba Babacar Ciss kii mooy DG. kii mooy DG ah, lan la loo xam waaw yaa tax DG peral melul ni DG ni afraam bi mel noonu la xolam bi mel. kii de li ma ko yàq tey ci suba fii yow nga ne kii mooy DG. I love you, boy. mu nice si si woo naa booy bi voilà parce que am na ay trucs yoo xam ne foog ñu réflexionné waat ko fii quoi d'accord ok pas de souci d'accord cool na. salaamaaleykum. waaleykum salaam. tonton DG. dama laa y mu doon jéggul li ma def sànq. maa ngi wax xaw ma woon na yow yaay DG maa ngi jéggalu bu wér tonton DG sarax ma ngir yàlla. t'inquiète amul solo. tonton DG ba sama dàq xaju ci. non non non non du tout juste que dafa am lu ma lay dénk rek beneen yoon tey boo gisee nit xamuloo kan la il faut aller avec des gestes de politesse d'accord. d'accord amul problème. lu paate doon wax rek dëgg la. tonton DG da ngaa baax sa xol bi dara nekkul ci dara. yow kay macha allah guddal fan rek allo lappi lappi kenn jéew ma dàq refléwuñ fii laay toog di snap di la ko yónnee maa ngi ñëw kër gi léegi tonton DG jërëjëf maa ngi dem. ko ni mu ko waxee woon balaa kenn di ñëw téléphone gaaw yow ak kenn saafara bi nga ma jox ni ma ko waxee woon noonu laa ko defee wis naa fii lépp balaa ñu may catu cat dafa gaaw wuy ma émission bi dans trente minutes lay commencer parel commentaire naa la may dédicace non non nga ko waxee rek noonu laa ko defee fépp laa wis mu ngi nii ma denc maa ngi coupé balaa kenn di ma dégg nga booy jug foog ngay muslaay te fii dama fi commencé bari noonu si kanam amis téléspectateurs de leen am mbégte bu baax a baax jano ak yéen tey nag ñu daal di ñëw ci beneen émission mu di góorgóorlu góorgóorlu nag tey du mu ci wet benn yoon dama ciy feggoo ak ki nga xamante ne moom moo di Yetta waaye itam ñu daal di ki nga xamante ne moom moo di Poulo laataa may ñëw ci pulo damay bàyyi ki nga xamante ne moom moo di Yetta mu nuyoo ak askanu Lou'Bess TV nuyu naa la. Hmm? damay wax bonjour bonsoir ça dépend d'où ça vous trouve comme kii ni mu koy waxee man la Yetta. fi ma nekk ni sama place na nag dama ko mérité maa fi war a toog dama bëgg téléspectateurs yi may seetaan yëpp de leen dugg ci live bi di commentaire di ma bindal samay baax baax fan si xam naa ne yéen a fi mais bàyyi ma delloo la kàddu bi nga wax ak suñu invité bi après nga soog a ñëwaat ci man ma toog fii. internet de Lou'Bess TV gis ngeen ko simple dara yegg si na rek commencé wane boppam waaye damay dem ci ki nga xamante ne moom di Poulo Poulo damay kontaan bu baax a baax ci dalal la nuyu naa la. Eh, may san maa ngi lay nuyu di nuyu sa asin tante bi di la féliciter si invitation bi mu invité ndax télé bi dix ans maa ngi fi dix ans kenn musuma invité ñoom si plateau bi yow rek yow musa invité ñoom si plateau bi. jooy sëñ bi jarul jooy yow day jooy di. tuuti nag waaye tuuti. waaw góor day dégg Pape Diouf woy na ko góor day dégg. macha allah gis ngeen euh, dañuy xuus ci kanam euh, ci waxtaan bi ak Poulo waaye laataa loolu damay euh, daal di poser benn question ki nga xamante ne moom moo di Yata Yata ba ma doon définir le mot góorgóorlu ana lan lay doon. le mot góorgóorlu su ma ko doon définir tey pour man dañu war a xool ci Poulo mi nga xamante ne yàgg na fi vraiment ay baax baaxam dégg naa ko daal dégg naa ay baax baaxam bu baax may yaa ngi seetaan nu ma mel ci caméra bi show naa wala show ma verre ma teg ko sama kaw bopp wala moo ko ci teg woolu waa kër gi wax leen maa ngay direct yow wéy dama ngi toj dëkk bi de ah commentaire ba positif na rek ku ci wax lu bon. kubéer yaa ma gën a xam. jëfandiku mooy lan. c'est quoi ces conneries yi. yoo xam ne xamoon ne live la nekk en lii lan la arrêté nañu émission bi. Eh, mooy sax. Mhm. bi mi ngi doog ba léegi. pour nga live dañ ko mujjee arrêté. da ngeen di arrêté ni émission bi mooy sax dix ans dix ans moo ngi si plateau bi kii bu bees bii mu ñëw mu tàkk bi nii. sama supérieur ma yuuxu nga ñëw taxaw di ma yuuxu de. dama lay yuuxu noonu dama lay yuuxu noonu ngay mel ni dessin animé bu ma yuuxu. yow ngay mel ni muus bu ndaw noonu ngay mel ni bu ndaw. noonu. lappi lappi. non émission bi jeexagul dañoo pause waaw pour loo fi daanu crise léegi ñu pause. émission bi xam naa dañuy remplacer invitation bi keneen lañ koy jox. allahu maa ngi lay rappeler je te rappelle. wuy nee na xam nga léegi mi ngi yaakaar émission bi may wax mu may fenaan noonu muy wax man maa daanu fii crise bu bu ko deuxième déggee naw mu mu wax man maa yàqal na ma émission. kii est-ce ko nokka fii. may sax mbay ma ma nokka ko rek. police gendarmerie. Mouhamed Boyi Ba ñoom Mouhamed Dili Ba ñoom Mouhamed Billo Ba ñoom Abdou Koudous Ba ñoom Moumou Salamata Ba ñoom Souleymane Ba ñoom Kaaw Mamadou Kaaw Ibrahima Ndong ñoom ñëpp war naa leen waroon sant nee na xawaa sax war naa ko sant moom mu yàqal ma loolu la. Um yow yaa ma um. um moom moo ma um. diis naa ko war na yàlla boo noppiwul ma lekkal a fi dégg. romb sa na la papillon